baol info point moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey baol info point net le portail du Baol sur le web. baolinfo.net mën ngeen a sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. dale na jàmm ñu ànd xëy yéen ñu xëyandoo yéen kaay gi délibération xëy du xibaar naa ni ministre de l' intérieur Makhtar Cissé dalal na xel ci lu jëm ci élection présidentielle yi moom ministre de l' intérieur ci biir journal bi daan nay wax ne matériel électoral bi yëpp yóbbu nañu ko ci biir réew mi nee na ci bitim réew ay détails bi daan nay wax ca élection yéen a kayi ministre de l'intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé daat nay wax ne loo xam ne jëm na ciy kàddu yoo xam ne mën naa yee fitna a kayi gi dale si ko xëy duñuy xibaar naan ñu Macky Sall ci APR ak ñenn ci ji bëggatuñu dara ci Amadou Ba teg bët Amadou ko def yéen a kayi gi yi nekk ci APR ak ci benn bokk a kayi gi dale si ko xëy duñuy xibaar naan ñu en tout cas sala ñi nga xam ne ñooy APR ak waa benn bokk yaakaar

nga xam nag ñuy waa PDS ñoom jamono ji fa ñu ngànkoon ba fa ko ndax Karim ak ñi bi nga xam ne moo convoqué élection yi ak décret bi nga xam ne moo wax nañu dem ci campagne bi décret yooyee journal bi ne ñi nga xam ne nag ñooy waa PDS ak ñi mu àndal dañoo bëgg Cour suprême daal koy annuler su ko defee élection yi ñu mën a ko dàq ndax ñoom nee nañu bala nga ne naam ne fa yéen gi di source xëy di indi ay leeral ci lu jëm ci conseil constitutionnel journal bi nee juróom-ñaari saas yi nga xamante ni dañu leen a ci conseil constitutionnel maanaam président bi mënu leen a dàq te seen mandat jeexul te nag Macky Sall bu doon sax dafa jaay doole forcé ba tas li nga xam ne mooy conseil constitutionnel dogal yi nga xam ne jot nañu koo jël maanaam dogal yooyee dafay wéy kenn mënu koo yàq yéen a kaay gii di laas xëy duñu xibaar naan ñu Amadou Ba ak ñaari attekat démb ñoo

xoolaat ba mu yembu Boubacar Camara ci biir journal bi dan wax ne bu ngeen ma dénkee réew mi lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi dinaa ko lijjante maanaam boo amee juróom benn njàng wax ne bu ngeen ma dénkee réew mi maanaam député yi dama koy wàññi sans député rek mooy am assemblée nationale yéen kaay gii di la témoin Déthié Fall ma nga woon ca Kër Madiabel nee na bu ñu ko dénkee réew mi dana lijjanti lu jëm ci wàllum ndox mi ak Sénégal dina moom boppam ci lépp loo xam ne maanaam moom lay dundee yéen kaay gii di Les Échos Amadou démb ma ngi woon ci diwaanu Mbàkke daan nay wax ne bu ngeen ma dénkee réew mi jafe-jafe yi nga xam ne Touba ak Mbàkke am nañu ko ci lu jëm ci wàllum ndoxu jafe-jafe yooyu dina jeex Amadou Ba nee na bu ñu ko dénkee mi daara yi da koy moderniser Amadou Ba nee na bu ñu ko dénkee réew mi lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi dina ko lijjante yéen kaay gi nee na coalition Diomaye président démb toj nañu Pikine waaye toj nañu Mbàkke ndax mbooloo mu bare bari moo leen fa teerto yéen kaay gi di Vox Populi Birame Souleye Diop daan nay moo mën moo doole te nag premier tour lay gagné élection yi nga la ñu dëgmal gi nee na antenne Diomaye Faye bi nga xam ne amoon na ko ca RTS ñu xañoon ko ko léegi delloo nañ ko ko yéenekaay gi di Réveil Quotidien Mary Teuw Niane nee na Macky Sall jamono ji li mu bëgg mooy saboter élection yi ndax Macky Sall xam na ne bu ñu demee ci élection yi coalition Diomaye président dafay gagné l'Express xëy duñu xibaar naan ñu coalition Diomaye président jamono ji ñoom ñoo téye internet bi ci lu jëm ci wàllum campagne bi yéenekaay gi di Les Échos Anta Babacar Ngom daan nay wax ne li mu def ci réew mi fukk ak juróom-ñetti candidat yi si des defuñu ko ci réew mi Babacar Ngom nee na nañu laajte 18 candidats yi maanaam lan la defal Sénégal yéen kaay gi de Le Quotidien xëy xibaar naan ci lu jëm ci wàllum campagne électorale bi ni ki démb jàppante am na ci diwaanu Pikine ñi bokk APR ak ay pro Diomaye yéen kaay gi de L'Observateur xëy xibaar naan ñu siège bi nekk Pikine dañu ko yàq yéen kaay gi ay gaañu gaañoo na fukk ak juróom ñoo bu ñu ko dénkee réew réew mi lu jëm ci wàllu monde rural bi ak jigéen ñi dinañu leen jàppale ba ñu gis seen bopp ci réew mi ndax Mame Boye Diao dafa jàpp ne réew mi mënuñu ko doxal maanaam sepp si jigéen ñi ma ngi woon ci Kër Massar yéene kaay gi de la sa xëy duñuy xibaar naan ñu Mohamed Boun Abdallah Dionne ni ki démb ma ngi woon ci banlieue bu Ndakaaru journal bii di Vox Populi xëy duñuy xibaar naan ñu Mohamed Boun Abdallah Dionne wax na bu ñu ko dénkee réew mi ana nan la koy doxalee yéene kaay gi nee na moom Mohamed Boun Abdallah Dionne danay proposé boo xam ne ay républicain ak démocrate yi maanaam ñoo joxonte loxo daal koy jàppale yéene gi de l'Observateur xëy duñuy xibaar naan am na réunion secrète boo xam ne famille libérale def nañu ko yéen a kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu libéraux yi jamono ji li ñu bëgg mooy tas conseil constitutionnel ngir nag ñu reprendre li nga xam ne mooy élection yi yéen a kaay gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye léegi tey ñu génn ci kaso bi journal bi sax li mu njortu mooy suba ci àllarba ji la Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye di génn ci kaso bi yéen a gi ba léegi kan lay jàppale moom Bougane gi dani books kan ngay jàppale Baol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey bawal info point net le portail du Baol sur le web. bawal info net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube bawal info ngir ngeen di mën di jot bépp xibaar bu ñu dugal.